di wax aussi ne mouvement Y'en a marre loi bu ñu voté woon ca pencum ndaw réew mi tax ba ñu bare génn ci biir kaso yi waaye li taxoon ba ñu nekk ci loxo yoon ba tey moo ngi woy di des ci xelu nit ñi. bi réew mi tolloo foo xam ni li nga xam ni dañ ko tuddee état de droit maanaam li nit ñi gëm ci ni mooy yoon sa yoon ni la war a doxe senegal dafa demoon ba nga xam ni daf fi bëgg yàqu. ndax dañu jëloon xale yu baree bari tëj leen ak ay mag itam tëj leen sa loolu jaarul woon ci yoon. ngir gën a mën a aar suñu démocratie tey sàmmanteeg ak ak yelleefu sénégalais yi plateforme bi ñuy woowee sursaut citoyen di woo yi ngir ñu ñëw xaatim ab pacte de bonne gouvernance waxtaan nañ ak ñi nga xam ni dañu woon dañuy doon candidat ñu ne leen nag lii pour mu bañ a xewati suñu réew. war na àll loo xam ne dañ ci war a d'accord ñun ñëpp ànd ci ni nii lañuy ñuy doxale réew mi ndax vivre ensemble maanaam bokk dëkk bu fekkee ne dañ koy def il faut que ay yoon yoo xam ne ñëpp dañ koy nangu tëral ko mu mel nii am na ay candidat yu jot a xaatim bile pak loolu nag la ñu woote ba am na candidat yoo xam ni d'accord nañ ci ñoom fukk lañ yoo xam ne d'accord nañ ci ñoom juróom-ñeent yi am na ñett ñu ci wax ni bëgg nañ ñëw signé ñoom it waane signé guñu loolu nag ci lañ nekk ci la xeex. ñu taxaw ngir gën a mën a dëgëral suñu démocratie bu ñu jógee ci jongante falum jiitu réew bu atum 2024 plateforme bi taxawal ay cellule ngir waxtaane lépp lu jëm ci wàllum citoyenneté te loolee daañu ko amal ba ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mars ci atum 2024